باتت تطارحني البكاء فكأنما تدري الذي بجوانحي من موجدي فبكيت غير بكائها إذ لم ترق دمعا ونحري بالمدامع قد ندي بكت الهديل على تقادم عاده أفلا أحن إلى حديث المعهد من ولا رب باكية بريواتنا في تخمد أجي جوي ولا رب حمامة باكية ندال حسب حمامة wala rubba baakiyatin bëri waa na pitax ma di aji jooy sajat nii jàqloo na ma maw xanan ca xaaju guddi naxamaatuha ay jooyam wala naxamaatuha ay wayam ñaar yëpp loolu lay firi wayi pitax moom wala sabi pitax moom dañ koy firee jooyam rek fawqal qadi bi ca kaw bànqaas al amladi bari aji naat mu ne man dey dama jàq te la ma jàqloo mooy damaa dem ba xaaju guddi dégg am pitax mu nekk ca kaw ay garab yu naat banqaas yu bànqaas yu nooy mu nekk ca kaw garab ya di jooy mu ne loolu mooy li ma jàqaloo xam nga ci ginnaaw daf laa waxoon ne la daa am ay gilem yoo xam ne dañoo sopp tukki te la leen ni ñaax ca tukki ma la tax ñu sopp tukki mooy bëgg tukki waaye ñañ jëm ak bërëb ba mu jëm bañ jëm tamit dañ leen sopp dañoo sopp bërëb ba sopp ñooñ bërëb ba loolu moo tax ñu sawar ci tukki mi waaye leneen di ñaax ci tukki matim daf caa bokk ay pittax yuy way te pittax yooyu lañuy ñuy sab di ko way yëpp mooy jamono ju yàgg joo xam ne ni moom la ñuy fàttaliku waxoon nañ ko mooy arab yi ci seeni waxin dañuy wax ne ci jamono te yàlla noox dafa am pittax muñ doon wax hadiil ab cooju pittax boo xam ne nii daa maroon ba dee wala ñu ne sax ab sàmm moo ko jàmm faatu léegi ñu ne pittax muy jooyati rek hadiil booba lay jooy cooju pittax moom léegi nag comme arab yi ci seen waxin la bu bokk ci seen mën xëj yu ñuy waxee rek moo tax sëriñ bii daal di koy indi fii waaye duur loo xam ne lu mu ñëw saxal la ndaxte ci chara bi ci boppam moom danaan tazumul arabu maanaam arab yi ñoo koy wax rek waaye wallahu alam loolu moo tax ci mën xëj boobu la ko jëlee waaye nekkul lu muy saxal mu ne man nag ba ma demee ba xaaju guddi damaa dégg pitax ma di jooy almawhan mooy buñ demee ba guddi gi xaaj moom la ñu tuddee xaaju guddi wala diggu guddi waaw mu ne pittax moomu di jooy nag mooma jàqaloo mu ne baatat fanaan na moom pittax ma tu taarixu nii di wanteeg man almutaaraxatu moog almusaajalatu ñoo bokk lu ñuy firi jàngoon nañ ci ginnaaw wata saajalat atyaaruha mooy boo waxee ba daaneel kii wax boo waxee ba daaneel keneen kooku jëlaat mooy li ñu tuddee baaroo baaruwante waaw comme ni jàngkat yi di def ci ci géew yi almutaaraxatu mooy almusaajalatu moo tax mu ne baatat fanaan na tu taarixu tu taarixu nii di tuuranteeg man wala di baaru wanteeg man Uh, hatta uh, albuka a jooy naam albuka a jooy muy baarawanteeg man jooy ya bu ma jooyee ba daaneel mu jël ka annama mu mel ni tadri mi ngi xam yi la nga xam ne bi jawaani ay moo nekk ci samay wàll min maw jidi tukkee ci njàqare mu ne ni muy baarawanteeg man bu ma bu ma jooyee ba daaneel mu daal di jël mu ne daa mel ni pitax mi daal daa xam man métit yi nga xam ne ni moom laay dund mu nekk ci sama biir balje di ci sama biir mbaq gi di ma métti li may yëg mu ne daa ni da xam ba tax bu ma jooyee ba daanaka rek mu jël fa bakaytu waaye jooy naa man xayra bukaayiha yudul ay jooyam fa bakaytu ma jooy xayra bukaayiha ay jooyam is ngir lam turiq tuurul moom alhamdulilahi rabbil alamin mu ne fa bakaytu jooy naa xayra bukaayiha yudul pitax ma is ngir lam turiq tuurul moom pitax ma dama an wa naxar yi te sama pottax xat na di tooy na bil ma daamee ci ay rongañ waaye nag li ñuy wuutale mooy samay jooy ma ngay jooy de maa ngi jooy ñiy baarawante waaye nag samay jooy wuute na ak yosam ndaxte pitax mi buy jooy moom du tuur rongañ te man maa ngi tuur rongañ ba sama pottax pottax mooy euh, fi baat bi jeexee xóot-xóot boobu noonu nga xam ne moo tàqale baat bi ak dënn bi mu ne man sama pottax bi damaa jooy ba mu tooy ba mu tooy xepp ak ay rongoñ am na yeneen nu sax yoo xam ne dañuy def wa xalqi bil madamii qad kadi maanaam au lieu wa naxri bil madamii qad nadi ñoom ñi def wa xalqi bil madamii qad kadi te loolu mooy sama sama put gi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi fot ci ay rongoñ mooy damaa jooy ba sama put gi daal di fees ba fot ci ay rongoñ kon moom mënta tur rongoñ man nag maa ngi tur ay rongoñ kon loolu moo ñu wutale mune bakati joyna mom pitarma al hadila ma pitarma al hadil day firi sawtul hamam way dañ koy wax djublu ci farxul hamam moy cuuj bi way fi loolu ci djublu cuuju pitar moy liñ ñu won legui ne pitar yi arab yi dañuy wax ne pitar yi joy yep cuuj bobu lañuy joy mune bakati joyna bakati joyna al hadila jooy ba ala taqadumi adihi andak yagak jamono awala ahil lu tee man ma sopp ila xadiit maadi jëm ci aji bees ci jamono maanaam jëm ci aji bees ci jamono mooy sama doom ji nga xam ne moom ci jamono ju bees la mooy bi ma tàqalikoo moom yàggul kii moom mu ngi jooy doomam joo xam ne nii wax nañ ne wax nañ ne mooy zaamu ne ci jamono yonente yàlla noox la pitax mi di ko jooy man kon est ce que awma droit jooy sama doom ji bi nga xam ne moom bi ma tàqalikoo moom ci jamono ji la yàggul moo tax mu ne bëkkati jooy na alhadi la cuujam ba alhadi la cuuj ba kon ala taqaadimi adi ànd ak yàgg ak jamono afala axinnu lu tax ma lu tee ma sopp man xan na yaxinnu mooy firi sopp na xanaanan ak ak sopp afala axinnu lu tax man ba duma sopp ila xadiitil mahadi jëm ci aji sama doom jëre aji bees ci jamono maanaam jëm ci aji bees ci jamono mooy sama doom ji nga xam ne bi ma tàqale ko moom yàggul mu ne wa bakat wa farqaaha hunaka wa qad ada anni firaaxi kullu nasdin qardadi mu ne wa bakat jooy na moom pitax ma wa farxaaha te cuujam ya wa farxaaha te cuujam hunaaka ña nga foofale bakat jooy na wa farxaaha te cuujam ya hunaaka ña nga foofe ca moom maanaam ba muy jooy moom ma nga tiim ay cuujam waqad ada te diggale na an nii walis ma firaax yi samay cuuj kullu nasdin bépp bépp bépp tund kullu nasdin bépp tund wala montagne xarde di ba di aji kekke an nasdu mooy martafaa min al ard mooy lu yëkkati ko mooy tund rek kek maanaam tund tund xarde di ba di aji kekke mooy bu wow mu ne man nag ba may jooy moom àll bu sori bu keke ay montagne ñoo ma tàqale ak sama njaboot kon moom moo ma tane dama ngay jooy kon lu tee man ma jooy maa rumtu minhum rihlatan illaa xajaw an laa talaaqiya baada daaka almashhadi mu ne maa rumtu sàkkuwuma minhum tukkee ci ñoom rihlatan laxas mooy tukki mooy mosumaa sàkku ci ñoom dem wax leen ne damay tukki mooy di leen tàggu illaa xajaw lu dul njortu nañ an naka lii mbir tey mbir laa talaaqiya déet ak dajee baada daaka almashhadi gannaaw boobule euh, janoo gannaaw boobule teewuwaay mooy heure bu ma leen tàggoo ne damay tukki rek ñoom njortu nañ yaakaar nañ ne du ñu dajewaat mukk ginnaaw daje bii nii loolu lu bare bari li muy am la tuggi rek ñëw rek tàggu say ñooñ dem waaye ndeke tàggoo boobu mooy mujjantelu seen gise fii ci àdduna dal nañu bare bëri mu ne fa ala awiluhum wa naaxu nawxatan salakat fu aadamu kaashihan fi mifadi mu ne fa ala daal di kawe awiluhum seeni yuuxu al awil mooy xaaw sabak till waaye fi mu ngi ko jublu ci seen kàddu yi ñëw wanaaxu ñi tëccatu mooy ñi jooy jooy yu ànd ay wax naw xatan tëccatu salakat sóob na fu aadamu kaachixin xolob aji nëbb nooneel fii mif adin ci furno fii mif adin ci taaluwaay moo tax ñu koy firee furno rek lépp loo xam ne dañ cee taal safara rek mën nga ko tuddee mif ad mu ne nag ña ngay jooy jooy yu kawe ña ngay boole kook ay wax di tëccatu comme tey nit bu faatoo rek ni jigéen ñi faral di def noonu nga xam ne lislaam daf koy tere mu ne jooy nañ di wax ba xam ne ki nga xam ne daf laa nëbboon nëbbaloon ak mbañeel ki nga xam ne daf laa noonoo bañ la sax xolam ba ma nga metti ma nga yëg méttit ba mel ni xol ba dañ koo dugal ci safara ci ab furno mu tàng jër xam nga boo demee ba sa noon bi nga xam ne nii daf laa noonoo yéene la safaan sax di la yërëm ba xolam di tàng di metti ngir gis gu mu gis sa njaboot di jooy tàggatoo gi ñuy tàggatoo yo day wane ne euh, métit wa jéggi na dayoo buñ demee ba sa noon di la yërëm day wane ne sa métit wa jéggi na dayoo <coughs> alhamdulilah rabbil alamin moo tax mu ne fa ala kawe awiluum seen i yuuxu wanaaxoo ñi tëccatu nawxatan tëccatu salakat sóob na mooy dugal na fu aadamu kaasixin xolob aji nëbbu nooneel fii mif adin ci furnu loolu kinaaya la rek ci ne kooku sa noon boobu mujj na la yërëm ba xolam bi day tàng ci loolu nga xam ne ni moom la gis sa njaboot di daj ci ay jooye ki métit wa saqaw taraqiyahum wa qaalu la tarim aw la fala tabaad wala tatabaadi mu ne wa saqaw ñi nandal taraqiyahum seen dendi baat ya at taraqi jamono ci at tarquwatu moom la yàlla di wax ci alquran naan kalla ida balagati taraqi wa qila man raaq mu bu ñu demee ba nga xam ne nii ruuxu gi yegg na ci seen déndi baat ya waqila man ñii naan ban médecin lañ koy yóbbul ban maa mën lañ koy yóbbul ban moccukat lañ koy yóbbul waaye kenn du ca mën dara fekk boobu dogalu borom bi subhanahu wa taala ñëw ci moom moo tax mu ne ñi nàndal seen déndi baat ya mooy ñi jooy ba seen déndi baat ya daal di déndi baat mooy ñaari yax yooyu nga xam ne ñoo seq potax gi nekk ci fi dënn bi yem dox gi tàmbalee fa mooy ñaari yax yu nooy yooyu loolu mooy at taraaqi moo tax mu ne wa saxaw ñi naan la taraaqi yowum seen dendi baat yi wa qaaloo ñu ne ñi wax laa tarim bul dem laa tarim bul toxalu mooy bul dem bul fi jógee awlaa bu fekkee mënoo fee ñàkk a jógee day falaa tabaat yàlla bul alko wala ta tabaat te yàlla bul sori bu fekkee liñ bëgg mooy nga bañ a dem laa tarim bul toxalu bul dem bu fi jóge waaye boo mënta ñàkk dem tamit ñu ngi ñaan yàlla yàlla bul alku baida yabaadu baida bil kasri mooy alku halaka boo ne baida bi maana halaka boo ne baauda yabaudu nag bi maana sori na diddu qaruba tabaada mooy safaanab taqarraba mooy safaanab taqarraba kon fala tabaad yàlla bul alku mooy yàlla bul dee wala tadabaa di te yàlla bul sori mooy tukki yàgg fa yal na yàlla indi ñëpp ñi nga xam ne yàgg nañ ci àll bi te seen njaboot mënuñ leen a gis ñu dellu si ak jàmm fekk ñëpp ci jàmm lu jar di ñaan la ndaxte tukki moom képp ku ci jaar rek da nga xam ne wallahi li borom li ñuy wax ci xadis in saxal xadis mooy ne assafaru qitaatun min al adab waaye maanaam bu wér-wér la li nekk ci tukki ci ay jafe-jafe moo tax alquran da fekk sax li ñuy tuddee ibnu sabil ki nekk ci tukki sax dañ koy mën a jox azaka ndaxte mën naa nekk ku woomal sax ci dëkkam waaye mu nekk ci àll rek tumuranke daal di ko fay dam mu ne abki alayhim baadahum asafan wa hum yabkuuna baadi ka thukaal al fuqadi mu ne abki maa ngi jooy alayhim ci ñoom baadahum seen ginnaaw asafan ngir njàqare wa hum te ñoom yabkuuna ña ngay jooy baadi sama ginnaaw ka thukaala mel ni ay jigéen ñu yaradal al fuqadi ñey way ñàkk seeni doom al fuqad jamono ci al faaqida mu ne man maa ngi leen di jooy ba ma tàqalikoo ak ñoom wan leen ginnaaw ngir njàqare gu may yëg ak métit gu ma yëg waaye ñoom tamit ña ngay jooy ba ma tàqalikoo ak ñoom sama ginnaaw ba mel ni ay jigéen ñoo xam ne ni dañoo am doom yu faatu a sakla moom lay jamo a sukaala ñu mel ni jigéen ñoo xam ne dañoo dal ñu ñàkk seeni doom kat sukaala mel ni jigéen ñu yaradal mooy ñu ñàkk seen doom moo tax mu tegaat ci ne alfuqadi moo tax mu ne wasfun kashif alfuqari ñooy way ñàkk seen doom mu daal di ci teg mu ne law kaana abdullahi yasmau nawxati alqad asa rihlati wa tazawudi mu ne law kaana bu nekkoon abdullahi abdullahi ibnu tahir ki abdullahi ibnu tahir la bokkut ak ki tax mu taalif téere bi ki tax mu taalif téere bi mu ngi tudd abdullahi ibnu nasir kii mooy abdullahi ibnu tahir mu ne law kaana bu nekkoon abdullahi abdullahi ibnu tahir yasmau di dégg nawxati sama téccetu mooy sama jooy yi alqad dana sànni rexlati sama laxas gi asaaha yetam wa wa tazawadi mu daal di yóbbalu mu ne Abdullah ibnu Nasir bu déggoon sama jooy yi sama tukki mi day dana jël yetam wi daal di koy sànni ba pare yóbbalu ci Abdullah ibnu Nasir Abdullah ibnu dana ko jox yóbbal bu mu am xam nga alqad asaa ilqaaul asaa mooy sànni aw yet kinaaya la ci maanaam sax bañ a yi ndaxte kiy tukki arab yi dañ daan faral di yor aw yat bu ñuy tukki moo xam boo demee ba léegi ci àllaf saalum da ngay gis nit ñi yenn yenn ñu mel ni pëlier yooyu masalan bu ñuy nekk ci àll di tukki wala ñuy dox sax ñu ngi yor aw yat gàlloo ko arab yi nag bu ñu daan tukki ñoom tamit dañ daan yor aw yat léegi nag heure bu ñu demee ba doxatuñ rek mooy yet woowu dañ koy teg mooy wane ne léegi laxasatuñ kon nag mu ne Abdullah ibnu Nasir bu déggoon sama jooy yi sama tukki mi dana mujj far toog sànni yetam moo bañ a yi te dana ma jox moom Abdullah ibn Nasir ab yóbbal ba ma doyal ndaxte dañu doon wax ne Abdullah ibn Nasir Abdullah ibn Tahir Abdullah ibn Tahir ku tabe la woon ku tabe la woon ba nga xam ne nii arab yi dañuy wax ne euh, maanaam ci jamonom dañ ko doon dàkkantelee ci ni ñi gënoon a tabe donte arab yi am na ñu siiw a ñu ñu xamoon ci ci tabe ku mel ni euh, ku mel ni nu mu tuddati euh, at-Ta'i nga xam ni euh, nu mu tuddati nga xam ne képp ku tabe rek dañuy wax ne tabeem googu nga jël waaw euh, tur ñëw euh, tur wi ñëwul du ñàkk balaa dara si biir jeex dinaa ko fàttaliku incha allah bari nañ ñeent ñoo xam ne ne arab yi danañ leen di danañ leen di faral di tudd bokk na ca at yi boobu noonu nga xam ne ni ci ñi gënoonu a tabe la bokk léegi nag Abdullah ibnu Tahir bi daa nekkoon ku tabe moom tamit waaw dafa amoon. benn qissa boo xam ne nii moom lay junji foofu euh, diggante Abdullah ibnu Tahir euh, ak kuñ doon wa Awf ibnu euh, Maxlam nekkoon ab shaar nekkoon ab shaar xam naa ne dañ koy yemale foofu ba darsu bi di ñëw ñi daal di jël loolu nga xam ne moo doxoon diggante Awf ak kii nga xam ne mooy Abdullah ibnu Tahir ak loolu nga xam ne moom la ko defaloon ci teraanga ba tax waykat wii di alxasan ibnu mas'ud di wax ne abdullah ibnu tahir day bu déggoon wala la la la kii doon wax la la awfu doon wax maanaam wax jooju awfu moo ko doon wax waaye sëriñ bi daf ko rek ngir daal di yegg ci seriñam fi mu bëgg a yegg moom lay wax ca kanam naan xillan laqad asmaataha anda yadan awfu boobu nag da doon wax ne Abdullah ibnu Tahir day bu yëgoon sama sama sama tukki mii dana ma yóbbal ba ma daal di toog moom la sëriñ bi nag di junji foofu mu ne law kaana bu nekkoon Abdullahi Abdullahi yasmau di dégg nawxat yi sama téccatu alqat dana sànni asaaha yetam wa rixlati sama laxas gi wa tazawudi mu daal di may yóbbal kon nañ ko yemale foofu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam